dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo wolof njaay nee na ko am ku dudd lakk ubbil yéenekaayu groupe promo consulting bii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllu bàyyi Guy Marius Sagna mi nga xam ne moom la ñu tëj ci kasu bi ñuy a ak ak yelleefu doomu aadama mbir mi nag daan nañu koy jël fas yéene ko xeexal seen bopp ngir ñu daal di koy bàyyi mu daal di génn ci kasu bi journal bi di Vox Populi mu ñu xamal naan ñu Amnesty International section sénégalaise la ligue sénégalaise des droits humains waa ñoom nag nee nañu daal mbir mi danañu ko yóbbu ca kanamu CEDEAO ak groupe de travail des droits de l'homme ak ca ONU yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu ñi nga xam na ñooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama niki démb bi ñuy janoo ak taskatu xabaar yi ñoom nag daat nañuy wax li nga xam ne moo leen jaaxal ci mbiri Guy Marius Sagna ndax ñoom nee nañu ñi nga xam ne ñoom lañ ko jàppandooloon ñépp la ñu bàyyi ba mu des Guy Marius Sagna rek te fa nga xam ne nag fa la ñu ko dugal sa kasu ba foofee ña ñu fay dugal mooy ñi ñu njort ne dañoo laale ci mbirum terrorisme maanaam lu jëm ci àq ak yelleefu activiste bi di Guy Marius Sagna amul benn yoon boo xam ne daan nañu koy respecté ñi nga xam ne na ñooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñoom Seydi Gassama ak ñoom Assane Dioma Ndiaye ñoom ñoo ko daal di le ñi nga xam ne nag ñooy droit de l'homme yi nee nañu nag lépp loo xam ne dal na Guy Marius Sagna ca kaso ba daal na Macky Sall xam ne moom mooy responsable ñoom sax dem nañ bay wax ne en tout cas li am ba des daal soow mi nag am na lu siy ñuul te nag dañoo njort sax ne France ci boppam maanaam moo nekk ci ginnaaw Seydi Gassama moom la mu jàpp ne na mbir mi acharnement rek la Assane Dioma Ndiaye moom la mu wax Sagna ak jàpp gi ñu ko jàpp maanaam tegewul fenn yéen kaay gii di waa grand place mu ñu xamal nañu nag ñi nga xam ne ñooy droit de l'homme yi ñoom jamono ji nag daat nañuy jël xeex bi journal bi di Sud Quotidien mu daal di xëy ci Macky Sall ak lu jëm nag ci li nga xamante ni daal maanaam diggoon na ko Sénégal yi ba pare daal di cay tëlee lu jëm ci yorin wu sell ak nag maanaam impunité ndax gis nañ ñu bari ñoo xam ne ay jege jegeñaale Macky Sall lañu dañuy def lu ne weng te maanaam dara du leen te fekk ak mbirum ger gi tamit jamono ji mën nañoo jàpp ne Macky Sall daf cee daal di tëlee ndax ngi ne cobbay ci réew mi am na tamit ñu bari ñoo xamante ni Macky Sall di jël di sànni ci kasu bi bi jàpp ne lu jëm ci mbirum bonne yorin wu sell loolee lépp Macky Sall daal ji nag defu ay jéego yoo xam ne moom la ñu doon xaar ci mooma yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy dikkal ñu nag ci mbootaay gi ëmb sànnikaay jàngalekat yi ñoom nag daal tey ji danañu amal débrayage waaye nag niki suba ci àjjuma ji danañu daal la nga xam ne sife woon nañ ko ak en tout cas ñi nga xam na ñooy syndicat jàngalekat yi waroon nañoo am doole dëggantaan bu ñu toogoon nag xalaat ci xeex bi ni ñu koy commencé maanaam ni ñu koy sumbee ak nañu koy doxalee te bàyyi kujje gi nga xam ne maanaam moo am ci seen biir maanaam rivalité gi yéenekaay gi di Libération mu ñu xamal na ñu réewum Sénégal ak Guinée-Bissau ak gi Guinée Conakry ak Mauritanie ñoom nag ni ki démb daje nañ ci Ndakaaru doon waxtaan ci lu jëm ci mbirum pétrole ak mbirum gaz ak ay experts yu baree bari ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu woowu laas yéenekaay mu ñu xamal na ñu ca ndaje moome nag nag njiitu réew mi di Macky Sall daat nay wax ne lu jëm ci wàllum procédure yi nañu ko baral maanaam jéego yi nañu ko gaawal loola journal bi mu ñu xamal naan ñu en tout cas Macky Sall jamono ji yàkkamti na lool pétrole bi ak gaz bi ci Vox Populi ñu fekk ko fa moom njiitu réew mi la mu xamle nee na lépp loo xam ne jëm na ci wàllum pétrole ak gaz bu Sénégal maanaam dina ko awale ci yoon lépp daal dina leer naññi journal bii di Vox Populi mu ñu xamal naan ñu jamono jooje nag Macky 2012 jamono ji ma ngay tas ginnaaw bi Aji Mbergane Kanouté ak Moustapha Diagne maanaam nag tege ak kuréel ci biir ngir Macky 2012 ngir nag indi ci ay yeesal si lañ leen dàq ñoom sax ñu jàpp ne nag dàq googee daal waxi kasaw-kasaw rek la ak wax ju amul bopp amul geena yéen kaay gi di réew mi quotidien ak Dakar Times mu ñu xamal nañu nag lu jëm ci drogue bu yees boo xamante ni daat nañ koy jàppaat bëri na loola toll na ci téeméer ak ñaar fukk ci ay kilo moo ne day journalub groupe Promo Consulting bi mu xëy di ñu xamal naan ñu ci weeru mai ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2019 bi jàppoon nañ sa lu benn tonne drogue boo xamante ni daala nga jóge woon ca Afrique du Sud yéenekaay gii di Vox Populi xëy nag dikkal ñu si Pape Alé Niang journaliste a génne ne ma ngay jiite kuddu bi nag léegi tey mu génn waaye journal bi di na nag Pape Alé ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Anne ndax ay avocat am lu ni mel journal bi di Source A xëy nag dikkal ñu ci ay révélation scandale bu garaaw a garaaw boo xam ne dafa daal di xew ca diwaanu dafa am ñaari médecin yoo xam ne dañu leen a jox joxar bi baaraam mu tuuma ne nañu noon yàq ëmb benn xale bu jigéen bu ay atam toll si ñaar fukki at ak ñaar xale bu jigéen ba mujj na ñàkk bakkanam ñaari médecin yooyee daat nañ leen di teg loxo ak ki nga xamante ni daal maanaam moo nekkoon copain xale bu jigéen boobee ak clinique bu nekk ca Rufisque ki nga xam ne maanaam moo moom boobale clinique jamono ji yoon ma ngi leen di déglu journal bi dem ba Touba di ñu xamal ñu foofee tamit ginnaaw ñàkku kaaraange gi am na benn xale bu jigéen boo xamante ni daal ab chauffeur moo yegg si kaw maanaam daf ko violé caxte caxte ko jéggi jàll enquête yéen kaay dikkal ñu si ñàkku kaaraange gi nga xam ne moo lëmbaaje réew mi ba tax askan wi jamono jii bu ñu nelawee du ñu nelaw ba yandoor journal bii di sunu làmb mu ñu xamal ñu Ama Baldé nag jamono jii ma nga ca pari la France lépp la waral mooy doxal ay entraînement ngir nag mën a daan ki nga xam ne mooy Modou Lo Ama Baldé journal bi nee na lu toll ci quatre-vingt-dix la teg si taabal ji te la ko waral mooy fas def ay fem ba nag daan Modou Lo gonek parcelle gi journal bi de Les xëy na alhamdulilah ginnaaw bi nga xam ne sauvé nañ combat bi di combat Modou Lo Ama Baldé Nicolaï moo fa jaar moom sax waa CNC daanuñu koy jox ab licence de promoteur waaye nag li nga xam ne daal mooy ñuul ci sow mi mooy nag lu jëm ci face à face bi ba léegi ni dafa tagga témbee ndax waa CNC nangoo guñu ko